avant muy ñëw Sénégal ndax jaar na Tchad réew moo xam ne bi ma nekkee Jeune Afrique maa ko doon gérer jaar États-Unis et muy nit koo xam ne na ubbeeku na xam na bi ni muy ba pare amna na combat bu mu porté woon ci Touba bi mu ba comprendre ni dañoo bëgg dénaturer wala yàq kombaam mu

Sénégal loolu lii lañ leen indil lan lañ bëgg a def liñ bëgg a def mooy taxaw teem ndax nag réew mi ñun ñépp a ko bokk képp kuy sénégalais am nga ci wàll te bu ñu toogee di xool réew mi ba ñu mënul dara ñu xamul dara ñu wax ba ndax réew mi Nous sommes nous ñu mais réew mi y ko yàq mi Nous du nous lu nous nañ ko wax mag magum Nous nous wax xamoon c'est pas responsable. nit nous ni mi ngi réew di dox nga pour responsabilité nga taxaw suñu premier combat nous nous fait 2DL combat bu concerne pourquoi. Je annoncer tout de suite qu'on a décidé de porter plainte contre la police du Sénégal avocat bi mi diligence moment bi ñi wax ni plainte ba ci askan pourquoi qu'est-ce qui s'est passé bi commencé di def collectif bi di ci liggéey renseignements généraux sénégalais, di dañuy ñu ngi nas ay pexe te tàmbalee guñu pour faagaagal ñi bokk ci collectif bi parce que toogaay bii lañ bëggul woon mu am te toogaay bii noo seulement dafay am mais fii ba cinq toogaay bii dafay am te day gën a tar il faut mu leer nit ñi lan la gars yi def parce que bëgguñu bëgg nañu déstabiliser suñu liggéey parce que bëgg nañu yàq suñu liggéey parce que bëgg nañu xoqatal ñu arrêté Ameth Ndoye otoom biñ ko arrêté jël permis maa ngi dégg ñu jël seen waxkat dawal sans permis parce que il faut il faut ñu sénégalais yi attestation jox numéro permis bi mi ngi numéro permis bi mi ngi ñu bind attestation prolongé attestation danañ ko photocopier jox ko juge ba ngeen xamni ni dañ ko jël permis attesté ko permis de conduire numéro 10 82 76 37 mi ngi ni permis de conduire attesté ko jël permis de conduire mi ngi ni yéen ñëpp ngeen gis ko biñ jëlé permis de conduire jox ko attestation biñ ko joxé attestation mu dem pour jël permis parce que lolu yépp leen rek tax ñu def ko lii lañ bëggoon empêcher maanaam toog bi ñu toog ak fii ñu jëm ci Sénégal ñoom mënuñu ko nangu te lii il faut xoolal képp ku ko bañ génnal Sénégal parce que toog bi maanaam gàtta durée bu gàtt durée bu bi gën a tuuti bi mu mën a am toog bi mooy vingt ans il faut nit ñi il faut loolu mooy il faut mu dugg ci biiru nit

li assurance auto bi la parce que damay bañ ñu jaxase seeni xel moom bi ñu koy arrêté assurance auto bi mi ngi nii